C'est à toi de voir qui est ton réseau. Ton réseau, c'est qui C'est le balayeur, c'est le gars du quartier, le gars du pressing, le coiffeur, tes amis, le chauffeur du DG, mais c'est ton tour. Et tout le monde doit être au courant même gagne bi ci jakk parce que man a dem ci jakk julli la la le réseau c'est tout le monde et chacun a un réseau parce que chacun a une connaissance on a tous des parents mm. on a des amis on a des voisins et même des inconnus mm. maintenant si vous ratissez large nga xol kam ci mëna en fait ut liggéey dafa laaj genre out liguey ci bopam liguey la out liguey parce que du yomb. liguey la xamul ce su que yow da nga jang ñu fay la nga dem CESAC am master 2 mais doyul la reconnaissance c'est l'entreprise sur le marché. so yoo xëyee nga nel un bon chômeur fi Sénégal 11h la yow le mauvais moy yow 1h du matin 1h 1h dans laprès midi naka nga bëggee ñak liguey nga bëgg nelo nelaw heure bu la neex. après bëgg dem sport teg ata mais kañ lay liggéey. Mhm. tu vas aller à en chemin c'est pas possible. mais mais tout yaa ngi wax ni dañu war a jàngi dañu war a jàngi mais ñu gis ni euh, Sénégal peut-être am na ay ndaw yu bari yoo xamante ne ñoom euh, jànguñu est-ce que aussi doo leen gindi ñu xam ne ñoom nekkul da nga war a jàng rek pour nga mën a réussir et que même boo jàngul aussi am na ay yoon yoo xamante ne boo ci tegoo euh, gaa di nga mën a réussir sa vie te di nga ko prendre en main. dina jafe trop nga bëgg a nit du jàng. mun nga wax ne ma njàngam soriwul. Mhm. man ne la waaw.

3FPT da leen joxe ay bourses yoo xam ne dañuy dem jàng ji par rapport à ça yaa gis dëkk xam-xam moo koy doxal léegi jor damay laaj su nekkee ne waa ji jàngul naka la lay dimbale. Mm-hmm. mais kay amul diplôme mun na nekk chauffeur. Mm-hmm. wala mu jàngi plomberie dem defi maçonnerie am na métier bu mu mun a jàng il faut un métier dans la vie. Mm-hmm. mun nga mu wax nag ne alxuraan laa jàng bu ma fa génnee jàng naa tailleur baax na. man dama jàng alxuraan bu ma génnee jàng naa dawal oto baax na jàng naa alxuraan bi ma génnee dem naa defi peinture waaw. man jànguma alxuraan jànguma tubaab mais métier bi mun naa ko mais am na luñ la mën a utiliser pour laaj la xaalis mais dama la bëgg wax ne la mënuñ dimbali nit ku mënul dara. mais kon foofu il faut ñu interpeller euh, état. peut-être ngir mu orienter leen ñoom ñi nga xamante ne mënuñ dara. léegi naka lañ leen loolu nag mooy loolu état mais nag loolu duñ ko mun def ci benn weer. Mhm. yaa gis état wax na la ko keroog. nee naa la politicien moom mooy xool prochaine élection. un homme d'État il regarde la prochaine génération. Mhm. ci loolu laa nous a des pour man Il y a ba ans 50 ans. Mhm. ñu a des fondations solides. gis les solutions les rafistolage taf du dem jamais ci Parce solution moo mëntañ rek lay doon. Mhm. parce que gis nañ ni avez une nguur benn réussir peut être ñi nga rupture. parce que xam nga avez dans la politique politicienne. gis avez une koy Vous avez une wax ñi ngay une na leen fi ñu pré préparez vos endurer avez une Sénégal nga faut que mën na ko defar ci benn mandat mais il faut être dans l'illusion pour le croire te mooy gëm loolu kenn du ko gëm ku qui est yaa gis dëkk yi ma gis ñu réussir seen scolarité def nañ ko ci 10 ans presque scolarisation des filles à 90 de la population mais dëkk bu nit jàngul naka lay développer, car mm-hmm. parce qu'à un moment de notre existence nit ñi dootuñu waxati de sooy dem ci autoroute bi lan lay orienté du ay nit ay flèche la soo jàngul loo koy xamee. jàng dafa baax ci lépp. Mm. am na dëkk yoo xam ne doo gis benn inter interaction machine ngay gis moom mooy poser question mu tontu la war a tukki. et pourtant suñu gars yi nga xam ne ñoo nekk fi ne jànguñ suñu jëmee Europe ils vont d'accepter d'apprendre c'est à ce niveau-là que ça se passe. état son rôle c'est de en profondeur comme Guirassy a def. Mm. ñaata enseignant la ñu mën na ma bañ amal njëriñ dans vie il faut ñu dem ci li nga xam ne mooy nekk l'utilitaire naka lañ mën a def pour jeunes yi suñu génnee ñu ja loolu nag faa ñu associé ci ñu def programme yi ak booy yi nga xam ne suñu génnee war dem liggéey tey ku mel ni par exemple golden bi ma nekk mën nañu fa ñëw laaj yéen yan problème ngeen am par rapport ak seen liggéey yan ñu daal di koy prévoir en amont su booyi paree mën nañu suñu def une expérience pratique UNIPRO loolu lay def avec Ousmane Seck c'est à ce niveau-là que ça se passe il faudra que mu gën a mais l'un dans l'autre il faut que dindi suñu xam nga par exemple fille, exemple laa lay jox dafa est genre ONG yu ñuy accompagner mhm. mais ko jox accompagnement day foog suñu da nga jox xaalis suñu culture loolu la lépp lu ñu dugg lan laa ciy gagné. maanaam en fait li ñuy jiital am-am bi d'abord. mais am-am baax mhm. mais dafa am lu ko tout. Mhm. da ngay xam ba pareil. après nga dem uti. léegi ñoom suñu dans l'accompagnement nga leen di jàngal ressources humaines ils sont dans la couture ou bien maçonnerie menuiserie dañ naan la waaw ñun on peut pas être formel mënuñ def lii lii dafa cher man leen mais su nekkee formelu leen yenn marché yi du ngeen ci am. pour wàll ne la rupture bi ñuy wax ci comportement yi la war a commencé yow naka nga bëggee gagné xaalis ci réew mi nga ne tu ne te conforme pas. nga ne mënuloo defal agent bi contrat mais chaque jour tu l'utilises. Mhm. tu es en train de l'exploiter mais quand même mënoo ko fay. Mhm. c'est ça le paradoxe en fait. ils veulent tout le temps qu'on leur donne de l'argent mais avant ñu la jox xaalis il faut que yow sa bopp nga daal di nangu ñu former la ba pare. Mhm. nga former la ba pare tegu ci yoon après nga dem a yenn marché en fait nous lay dëkk yi doxee ku gagné ci. mais di gagner tout le temps. te exploite l'autre ça pose un souci réel finalement là, la wax lii amul ñu njëriñ li ñu intéressé financement à l'étranger. Mm. tout le temps que nga cette posture d'assistance mm. tout le temps demander. et qu'est-ce que je suis prêt à faire c'est là où ce problème se pose. accès au financement c'est bien Mon nañu ko rôle de l'état à des taux réduits le bar la. Mm. produit bi ñuy jaay fi c'est une très bonne chose il faut un nangu formel di fay say impôt nekk ci yoon loolu moo lay dimbale mais déedéet da ngay ñëw toog sauf fa déggul financement jóg dem sa yoon politique boobu la ñu war a bàyyi jël ay que di ko jox ay nit duñ leen former am une clientèle politique c'est pas normal mm. nit soo ko bëggee dimbale doo ko may jën tout le temps da nga koy jàngal ni muy nappee et lui dire la vérité c'est comme ça qu'il faudra faire les former je sais qu'il y a très bonnes écoles dans ce mm-hmm. pays les gens qui sont en train d'être formés il va falloir maintenant qu'on leur dise après la formation prenez le temps d'apprentissage ainsi de suite et créer aussi de l'industrie ça c'est le rôle de l'État le secteur privé bi ñu jël dañu war jox ay marché ñoom ñu gagné ko jël boy nekk ci école yi ñu mhm. ñëw jàpp leen ci bi ci logistique ci finance ci marketing ci ressources humaines ci mécanique Et sek am chemin de fer li monde, a jël ci nit kenn xamul nu mu mhm. agriculture n'en parlons pas la pêche n'en parlons pas mais il faut qu'il donne d'abord au secteur privé mhm. ñoom ñu nangu jël marché boobu jël ay jeunes ñu accompagner leen ñoom ñëpp ñu li chaîne de valeur bi ci nekk ci liggéey dafa bëri agro business li ci nekk ci liggéey mun na ji absorber ñëpp. gars yi nga xam ne niveau d'études, mën nañ fa dem comme ni def Espagne di for affaire kii na avant ñu koy transformer. Mhm. lu ci bëri ci mhm. y a beaucoup de choses qu'il faut. mais il faut qu'il soit préparé pour ça. Mhm. Qu'ils soient formés. même si n'est une formation longue durée il y a des formations de courte durée aujourd'hui par rapport à ton métier on te forme. une formation accélérée. Montagnac ta d'accord. c'est indispensable. voilà il faut nga xam doog a jëf. donc ñi nga xamante ne jànguñu peut-être bëgg formation mën nañu orienté wu ci formation accélérée pour mën a xam au fait les béyabaa ci li ñu bëgg dugg en fait. ñi jàngul bëri dëgg la. Mhm. mais mën nañu jàngal métier. d'accord nit ce n'est pas parce que demoo école rek y a des gens yoo xam ne mën nañu jàng bañ a jàng école. Mhm. mais macha allah seen intelligence n'est plus à démontrer. Mhm. mais faaw ñu am métier. ñàkk dem école damay léegi waxuma jàng rek ak métier ñi faaw nga am benn métier boo xam ne moom moo tax. nga mën a am ëllëg liggéey pour dimbali sa njaboot. parce que liggéey jaamu yàlla la mais su nekkee ne coro tu ne l'as pas comment tu vas faire pour la voir. ça pose un souci réel. c'est vrai donc si foofu laa gis. alors euh, bëggoon naa xam aussi euh, jeunesse bi nga xamante ne ñu ngi ci biir Sénégal ban contribution la ñu mën a def ngir développer seen dëkk ba ku ci nekk mën nga toog ne man contribuer naa à ce que sama pays développé. absolument yaa ngi coro dëkk lu koy doxal civisme ci la bokk ak comportement. Mhm. su nekkee ne am na benn livre bu Jean-Jacques sur le contrat social mu obéir à la loi qu'on s'est prescrite c'est ça la liberté l'impulsion du seul désir est esclavage c'est-à-dire que la société et les conventions n'est pas naturelle d'un un état de nature pour nous unir ensemble parce que dans l'état de nature condition de vie là-bas dafa métti tremblement de terre l'hiver euh, l'austérité en fait les difficultés que rencontraient à l'époque les gens mm-hmm. faisaient que état de continuait de de nous.

bëri na ci soxla papier dem corrompre mbedd mi policier bi en fait état bi ndaw yooyu ñuy xeeb ñun ñëpp moom la ñu a respecté su ma waree seetal que gis ma ñàkk ma gis ma war a nekk sama gendarme bopp lu ma war def ci dëkk bi loolu en fait il faut un état d' moom la changement de paradigme ak bi ñu war a am mooy mbedd buur la buur mooy kan buur mooy yow buur mooy man mooy tey ñi am grève nañ yàq kaar bi nañ def lii ñu tàllee mais suba ñun ñoo koy soxlawaat il faut que tu tey suñu un benn niveau de prise en conscience moi dañuy une ba prise de conscience gis ne grève amna, voilà wala am na ñu takk lu ñu ko mën manifester mais su ko juguñ ci logique gu yàq tout le temps pour defaraat. c'est un éternel recommencement. d'accord accord faut vous day laaj ñu am notion de. la responsabilité aussi. absolument de la responsabilité Il faut aussi day laaj ci état bi tamit euh, dugal ci les bu baax léegi yow ban politique nga jàpp ni peut-être état bi bu ko defee euh, jeunesse bi dina forcer pour am cette notion de la responsabilité ba bañ a jéggi ay xam nga responsabilité ci def ciy bokk. yaa gis tey soo nekkee ci kër ngay digle sangay te doo sangu wala nga gàddu tàmm di tëgg ku fecc waroo koo dóor. te su nekkee da nga nekk njiit lépp lu ñuy aaye ci ger yaa ci njëkk détournement en plus finir exubérance bi ngay wane manque de considération bi ngay wane ci nit ñi mais naka nga ñu mën a ooyee pour ñu ñu respecter la loi ça pose un souci mais yow mu koy ootee yaa ko war a njëkk a jiitu ça a jeex ci réew mi yow laa àndal lu ma neex def. mais loolu qui ñu ngi ci il du a yow la àndal yow la ñuy jox marché bi au détriment de la compétence. Mhm. ça pose un problème yow la andal institution je fais lu man déedéet. Mhm. yaa gis dëkk lu koy doxal bokkal ñu ñu def égalité des chances en fait. ku nekk du ci de bi comme États-Unis xam ne c'est possible de travailler mhm. c'est possible de réussir terre promise la. la terre où tout est possible. mais Sénégal loolu ñu war dem ba nekk loolu. loolu pour mu nekk nak dafa bari ay éléments yu war poser ensemble état bi war na fexé di déjà Sénégal first ñi bayyi di jël suñu affaire yi di ko tourner vers l'extérieur commencé xalaat suñu bopp. Mhm. na nga dëkk yi am gaz am pétrole am lépp ba pare dëkk ba ñàkk lépp y' problème réel ça veut dire quoi y' problème de dirigeant il est temps maintenant qu'on pense à nous-mêmes. Mhm. et que ñu am ay dirigeants yoo xam ne dañuy arrêté di comploter pour ce parce que loolu mooy dëgg. Mhm. ay yenn marché nga jox ko à l'Occident au détriment des Sénégalais mais loolu crime la au moment où par exemple koo def dialyse dans ce pays là amul. jeunes yi jàng dëkk bi yomb mën a changer sax seen travail am tay su la neexul nga dem fenen mhm. comme mag ñi ñu ko doon défé mais loolu mu tax ñu mëna réussir. coono mais loolu su nekkee mënul pour mu nekk il faut ñu dem vers des industries loolu mënul ñak mhm. parce que société ñu yor fi mhm. industrie moom mo mënul tax ñu ci mën avancer. su amul du soti benen bi moy il faut que jeunes dal di jang les compétences du gaz. compétences pétrole. surtout. digital la formation. moy jamono ji tay ci loolu lañ toll. mais ci coono suñ ko amul on est obligé d'aller à l'étranger xam nga nag mënoon nañ nekk ci dëkk heure buñu indi occidental nga mer te yow lu occident bi def mënoo ko il faut que tam ñun tamit ñu conséquent ñun le secteur privé nañ yegg ci tuwaay yëpp fu nekk ñuy yux mais il faut que ñu lu ñu leen jox ñu mun ko compétence yi ñu transféré suñu ko amul ñu wax waaye ñëw fii ñu jël ay nit ñu formé leen mais mënoo tamit di laaj heure bu ñu la joxee li ñu laaj mënoo ko ça pose un problème comme le jeune mënul bëgg a nekk way nañu jël dañu bëgg liggéey saa ñu la joxee liggéey tamit doo ko def mm-hmm. une chose c'est de trouver un emploi une autre c'est de le conserver mm-hmm. coro tey nga dem ut liggéey am ko mais tu n'es pas ponctuel tu n'es pas assidu tu ne fais pas bien son travail mais tu soo ko ñàkkee yaa ko ñàkkal sa bopp. wala nga fexe benn nit indi la fenn parce que moi la fi indi tu te comportes comme toi tu veux. ça pose un souci en fait il y a tellement d'éléments qui font que souvent pour nous ñu réussir dafay xaw a jafe mais man li ma njëkk a pour nous réussir li ma njëkk a xalaat mooy warul compter ci kenn. gannaaw ci boppam ak xam c'est vrai alors tout à l'heure yaa ngi doon wax réussir tout à l'heure aussi réussir autant pour moi il y a eu aussi gouvernement bu bees boo xam ne dafa woote